Pikir ñu Grand Dakar bàyyi waay Cikiri eh? ne ko sama booyam dañu def émission may ñu tuuti fayal Cikiri fu lay xaar pass naaj non Cikiri day xaar lu muy xaar day xaar ba jamono ne da lay xaar jamono xaw ma ko quoi moo la mais dafa mel fii mooy ñàkk tànk bi carrément nag mooy dambeloo bi dambeloo bi waaw fii la <laughs> naaj ah fii mooy lépp gaan fii mooy dambeloo ñun fii lañ dëkk si dëkk bi waaw mais gars dañ la gëj a gis xamuñ ci loo nekk maa ngi maa ngi dégg sax ñu da nga bàyyi bëri ah. bàyyi bëri xanaa ma dee. ah bari sëñ Bamba jegewuñ sax fi ñuy bàyyi bëri. Ah. ay moomin lañ ay xale. <laughs> waaw sëkkantoo ngeen ma la jaar. dañoo dox ba tase yow rek. lii lakk la wala xam wala cin maa ngi gis wax. da ngeen di seetaan làmb ñaaru. waaw noonu la demee pression làmb yi moo tolloon foofu. Uh-huh. ñun ñii faruñu fenn sax dañoo doo wi ñaaru. ndax làmb daa amoon coow. daa hmm. nañ comprendre te sëñ Bamba ñoo ko fa am. billaahi. Eh, waaw mais gars yi ñu ngi gis ku loo nekk rek. maa ngi fi maa hmm. a bëri gars yi ba léegi gis nga am combat ba dóor maa ngi yéen gis ngeen ma nii naaj maa doole. waaw ah, yaa ngi forme bul ma cet lii. <laughs> temps yow dafa benn wax dëgg yàlla. naaj ñoo la lii la lii nag. sa loxo bu néewee suba bul ma woo. néew. billaay bu néewee suba bul ma woo. ana kii. kan la bi gaan woo nga ma mooy lool. looy dee waatee jabar instant bi. yow benn jabar nga am si benn bant instant bi. waaw baal ba am yeneen ak yeneen soog a xool ñaareel. dëgg neexul. billaahi. mais gars dañu daan mu ko non maa ngi ñëw. mais yéen booy yéen lañ mën a xaar ak loolu yéen booy. instant nii. am na lamb bi am. la la douze nga gis yow. ku war a daan yàlla na daan ma jël ko. kan kan la. ku war a daan.

ñoom bëgguñu may xool fii may xool fii nga bëgg. da ngay taxaw fu nit ñi taxaw. ñoom ñaar ñoo war a bër. ñoo war a bër jëm si. ñooñu ma si dara mais man daal maa ngi sama bopp maa ngi sama entraînement. mais dafa gi de moom baaxul ci gars yi ndax day song tànk mu jeex tàkk tàkk tàkk. waaw da nga koy wax mbër yooyu di ñëw stade tànk di ndaw. man mosuma sumeeku stade ñu naan liggéey damaa bëgg suuf bi. la demee barki allah ji Fall. waaw. <laughs> léegi comment dina toog gis naa ne ngay seetaan. waaw di def ay am na ku toog sa da ngaa jàppandu si moom bañ a yëngu. moom nag instant mi ni seetaan di def ni perte faa ngay kasut nii la wootee mu yëkkati. mais nag faruñu fenn ñoom. mais pression làmb ji ak signature yi cooy moo leen tax a commencé yu ñaar ak yooyu. soo gisee kon ñuy classe dafay gën a def. non loolu rek tamit waaw fekkee daa juum gars yi di nañ ko jéggal waaw fekkee juumul ñii di ko classe na jéggal. yee noonu la demee ko waaw. yow yow ma dara man làmb jooj daal ku daan daan na waaw ku daan moo daan xaw ma dara <laughs> ñaari kaayam dañ mee bégee. <laughs> moo tax ku daan moo daan. daan moo daan. lamb jooy ku daan moo daan xaw ma si dara dew ma instant sax la ma fekkoon. Hmm. waaw. yàlla toog man dew ma dara alalu procureur laa. billaahi. <laughs> de mais Lamine Lamine war nañoo laaj ëllëgu Laurent ci làmb ndax nee na bëri mu na tax ci diggante mu Moustapha Gueye di moo ne ma. xale yi yëpp mënuñ ko téye ci benn ngoon. mais Moustapha Gueye man dama xaar raw si làmb. waaw. soo xoolee kii mu jël ni man maa ko ëpp coow làmb maa ko raw. moo tax ma bàyyi ko fi mu dem kee soxla ko jël ko. waaw maa ko raw quoi si làmb man nekkul damay jug rek bëre. non non gisoo moom mi nii nii dañoo jege yàlla quoi ñoo may wax jëlal rek ma jël. billaay dañ siy waxtaan maa ngi ñoom ba pare. barki leeru alxuraan dëgg neexut. mais fan nga jàpp ne mooy sa adversaire bi sérieux pour l'instant. sama adversaire pour l'instant. instant moom bëgguma yow musuma laa. musuma ah! ma tiimal bi ne la kii laa soxla. Ah, waaw ne léegi. ñooñu kon foog nga wax ñan la fi. benn ci Cikiri. ay doomu xale boobu cooyee kooku mafia bi daa am doole Grand Dakar Grand Dakar. bis bu bëri ñaata combat la bëreegu. premier combat fële ca Géé Omar xaw ma ko xaw ma ko. naa su wax ma ay mbër waay yu teg man ku onze combat la ma jël Alliance Baldé am vingt six combat ma jël. ma làmb man jël. mais man du jëlaate. du may benn booy loxo. ñoo ma mag nag mais maay naxaate kenn du ma barki Alaaji Fall. ak lan. ak moom kay non dama xam ne dama xam ne temps yi moom xam nga Lamine. moom dafa gëj a bëre. man laaj ma kañ nga bëri. le 25 décembre. waaw mais décembre ba léegi décembre ba léegi sport bu mel ni ah non gars yi la. gars yi na mu si communication man man man mbëru 400000 de. mbëru la nga léegi. mbëru 800000 yi wala 400 mu ne bëre chaque jour man million moo may tax ak ngeen. ah parce que allah biir arène nationale. comme nii may ñëwee di daan nii rek laa ñëwee amul changement amul dara. sa diggante Seck Ndanane doon nañu ko. eh boobu dafa diis moom. <laughs> gaan wax mbër waay. Seck Ndanane doon nañu wax seen diggante. kii Seck Ndanane. ndax Seck moom. mbër. day bëre fu mu dëkk. ah Yoff la dëkk. konoon bëre ku mu jee oh sama fils sa mu jee daal. mais nag Kër Mbaye fan loo ci kan mooy Ibou. xam nga Ibou ay tabaag a soxla ma bañ may wax ay mbalit. tamit dëgg neexul. voilà wax leen ma mbër mën barki allah gi fàllu du ma bëre mbalit. wax leen ma ay mbër waay barki yàlla. lan la ñu dëgg neexul. mais kii yor daal gaan soxla na ma man dañ naa xam naa ku ma war a maa ngi entraîné da ngay jéggi dal. ñeme woo jël naaru de moom. naaru sokaas am si gaale bi. gis la jëli asal asal. est-ce que juumoo leen. ak ñi daan. lii sax daa wàcc jël naar. Ah? daa wàcc jël naar barki yàlla. daa am na mbër yoo xam soo bëree ñoom leen di yokk coow làmbuwaat mayaat leen bonus ndax ñoom yàlla da leen tàcc fecc ñun ñi yàlla tàcc dañuy fecc bay windeelu barki allah ji fan lamin circulation laay bañ a def si tëli di jéggalu ñëpp waaw si doole sëñ Fall balaa tëli bi di xat laay man zawel amul temps temps daa seer bon appétit Lamine fayal. mais riz bi bi nu bi ah, ah. nga fekk di bor di la. kaw tali la pharmacie bu mag wala bu ndaw. ndax mu mag. waaw am nañ yàlla bu bu mag bi tarkindaa bi. tarkindaa bi mi ngi fi. keroog damaa la gën a leen tëj. waaw làmb bu jaadu la. leen fayee. buñ leen fayul moom duñ bëri. Siteu maa la lu wax du làmb lu wax bu Balla Gaye bëggee Siteu bëgg ñu fay leen. ñu bëre bu ñu leen fayul dañuy toog lem seen genn daaw ah. dëgg neexul dañuy liggéey rek barki allah gi fal xaalis ku nga fay nga bëre dafaatul nii ne man la bëgg a bëreel barki leeru alxuraan waxuma la ay quatre de trente bu duggee gàlle barki allah gi fal ma suuli tànk yi nga bëre kat tafaati 30 millions. boo koy jàll mu boo paree ñaata ngay fajoo. ah baax 30 millions kese laa bu duggoon jàlle sama digganteeg tafaati barki leeru alxuraan cinta. mais boo dem laaj ko ba du yëngu daan fajoo. dafa am mën a faj. dafa lan la mën a def loo xamante daf may. ah mbaalu ñee mu yóbbu ay damb loxo yooyu leen tiital ñee seen yax yi dëgëru ay xale la Bombardier Boña seen yax yi dëgëru danga yaakaar maa ragal lu may wax na ñee nga may gën a laaj Bombardier ak Boña seen yax yi dëgëru dafa atin bu ñu mbëkkante woon mbëkkante waat mu bàyyi àdduna <laughs>